2017 laa dugg ci athlétisme au niveau national muy ci biir Sénégal mu commencé di compétir boo tey ma nekk champion du Sénégal ci 1500 mètres ba léegi nii depuis 2017 nekk champion du Sénégal au 5000 yor record du Sénégal au 5000 mètres mooy temps bu gën a gaaw ci juróomi kilomètres yi man maa ko yor dëkk fii ci Koupentoum dëkk fii ci Koutiaba euh, li may lancé ci autorité yi moo ñu jàppale ma man ñu jamal la ñu jàppale ñeneen ñi xale yi am nañu ay talent fii war na bu ñu detante dinañ fi génne ñoo xamante ne ñu ma ëpp la waaw loolu bu ñu ko defee rek ñi jàppale ñu ñu génn dem wutaat yeneen liggéey foofu noonu parce que bu ñu génnee da ngay gën a am euh, performance mais boo toogee sur place donc du baax bu ñu mu mënee jàppale daal ci financièrement mooy financièrement dina dina ma neex trop.